yaa xayra day jëf mbokk yi nuy bàyyi xel ñu ngi fii ci dëkk bu sell bi di Touba benn fan ci Ramadan di weeru koor atum 1444 ginnaaw gàddaayu ko yonent bi salallaahu alayhi wa sallam dëppoo le 23 mars 2023 ci xibaar yi nga xam ne moom lañu fas yéene baaxee mu jëm ci euh, weeru koor gi fii ci dëkk bu sell bi di Touba ci mbooleem activité yi nga xam ne moom moo fi am xibaar dañ koy door rek fii ci résidence Khadim Rasoul ni nga xam ne noonu la ko Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom ba Bassirou di xalif général des Mourides baaxoo amale muy dundal fi weeru koor gi loole nag euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa daara Hizbut Tarqiyyah mi nga xam ne ñoom la ciy àndal jël nañ ci ay matuwaay yu am solo ak li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum njàng meek ak la ci aajow loolee lépp euh, jël nañ ci ay matuwaay yu am solo ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, jëwrin yi am nay kàddu yoo xam ne yëkkati nañ ko mu jëm ci wàccaay woowu leen ñu ànd teewlu leen daanaka ren sax danoo yokkaat euh, li jëm ci wàllu micro yokkaat nañ ko li jëm ci wàllu baafal yokkaat ko daanaka boo xoolee comme at mu jot day gën a day day day gën a yokk moo tax it ren it daana yokkaat nañ ginnaaw bi nga xamante ni eh, journée xasida bi jàll na fi ñu boole suñuy doole muy collaboration mbooleem média yi nga xam ne yoonu murit lañu nekk loolu ñu def ko mburu ci journée xasida bi def ko ci journée di kurla bi daaw ñu def ko ci ramadan bi ren jit noonu lañu fas yéenee def loolu dañuy jàppale ñu mën ko suivre à travers euh, réseau yi nga xam ne yëpp yore nañ ci yoonu murit ci site internet ci réseaux sociaux yi ci seen télévision yi nga xam ne benn benn benn lien RMTP boo xam ne signal neutre lay doon nga xam ne képp ku ko bëgg a diffuser da nga ko mën a diffuser te den fexe ba mu jàppandi ci mboolem fu murit nekk ci àdduna bi ngay mën a dund en temps réel événement bi ci yoonu ko dundal gi ñu dundal événement bi ci biir résidence Cheikhoul Khadim mu nekkoon euh, kàddu yi ñenn ci jëwriñu daara Hizbut-Tarqiyyah ci installation yi nga xam ne ñu ko doon def fii ci résidence Khadim Rasoul jëm ci njàng mi mbokk yi weer wi bi mu feeñee fii ci dëkk bu sell bi di Touba ci guddi gi nga xam ne moom moo njëkk ci naafila gi ki nga xam ne moom moo di Serigne Fallou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadir moo jiite gee ginnaaw euh, bi ñu jullee ba noppi nag am na kàddu yoo xam ne ni ko baaxoo yëkkatee amal na ko ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides soññaat ñi nga xam ne ñoom ñoo di julit yi waaye ndokkeel leen ci weer wi nga xam ne moom moo di weer koor gi ak farlu gi nga xam ne war na ci képp koo xam ne ab jullit la ñu ànd teewlu kàddu yi Serigne Fallou Mbacké yaa xayra dayfin ata bi bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi maa ngi leen di nuyu ci turu sëñ Mountakha saahibil himmatil aliya walxalifati l aami lil muridiya di leen jottali ci ndigalam kàddu yi di ko tàmbalee sant sunu boroom minu defal fekke ak tal di ndokkeel jullit yépp di ndokkeel sëriñ bi xaasatan di ko ñaanal yàlla mu gën ko sàmm aar ko kàttanal ko mottilil ko mbooleem naal yi innahu ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir di fàttali mbokk jullit yi yépp ne weer wi passé la chance ngir gën a jege yàlla ak gën a safaan sunu boroom farataal ci nun woor ko ci laaya bi ñu jàngoon ci gannaaw di laayab yaa ayyuhal ladiina aamanu kutiba aleykum siyaam ngir nu am taqwa te sax ci taqwa di loo xam ne ku ko am am lépp ndax day maye xam-xam wattaqullaha wa yuallimukumullah di maye wërsëg wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuqu min xaytu la yaxtasib mbokk yi ku ne koor fii ci dëkk bu sell bi di Touba ne njàng mi nga xam ne mooy am ci résidence Xaadim Rasul ñu ci ànd ak xalifa général des Mourides ak daara Hizbut Tarqiyyah moo tax ci benn fan bi rek sëriñ bi bàyyeekoo na fële ca Daaru nan ñëw fii ci résidence Xaadimu Rasuul ngir dundal fii li nga xam ne moom moo di koor gi li nga xam ne noonu ko baaxoo di amalee ak lenn ci daayira ak délégation yi nga xam ne ñoom ñoo koy euh, ziare si sëriñ bi nag euh, bi mu agsee fii ci résidence Xaadimu suul am na yoo xamante ni daroon nañ ko euh, ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa daara historique ñu accueillir ko ci ay xasida ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo amalee bës bu yàlla sàkk saa yu sëriñ bi ñëwee fii ci résidence xaadim rasul ci biir weeru koor gi mbokki ba léegi ci la loolu ñuy desandi sax sëriñ bi bi mu agsee fii ci résidence xaadim rasul jot na fee dalal euh, jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu toftal ci jëwriñ yi nga xam ne moom moo yor wàllum ndox mi ak assainissement bi ak ndox mi nga xam ne mooy bàyyi koo ci taw bi moom nag ginnaaw nemmeeku goo xam ne doon na ko amal ci dëkk bu sell bi di Touba mu jëm ci eh, nemmeeku yenn infrastructure yoo xam ne ñu ngi ko fiy liggéey mu jëm ci eh, ndox mi nga xam ne day taa te bàyyi ko ci taw bi loolee nag ginnaaw bi gisee naa ko Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom ba Bassirou am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko ñu teelu ko président de la république bàyyi na xel Touba ci liggéey bi nga xam ne mu ngi ko def ci Sénégal mais surtout ci wàllu inondation ndax jafe la boo xam ne dafa askan yëpp yàlla dafa dogal président ci discours am bi mu def ci début du mois de septembre dafa xamle woon ne ñaari priorité yi yu ko soxal la bii jëm ci wàllu dund gu cher gi te mu def ci ay jéego yu mag jël ay mesures beneen bi moo nekk jëm ci wàllu inondation ci loolu nag Touba bénéficier ci benn programme bu toll ci 23 milliards boo xam ne ni ci biir programme bi am na 20 forage yoo xam ne defagum nañ ko. te vingt forage yëpp ñu ngi dox fii may wax ak yéen ni muy forage de rabattement ndax Touba dafa am zone bu bëri boo xam day am remontée de la nappe lu mel ni wëti jumaa ji donc te loolu forage yooyu noonu rek moo ñu mën a permettre ñu mën a rabat nappe bi ba ndox moomu doon yéeg mu mën a wàccaat beneen bi mooy li nga xam ne mooy station de pompage yi nga xam ne yéen yi dañ ko war renforce bu mel ni bu mel ni Kër Ñang yokk capacité bi mais aussi yokk bas capacité bassin bi pour mën a ndox moom doon jël mu nekk capacité bu bu bu gën a gën a yaatu ñu doubler ko euh, fële nga xam ne nii moom mooy euh, ngelamu ñu war fa def benn station de pompage bu bees war fa def bassin bu mag boo xam ne nii ndox mi jóge ay ngira neen ay ndaamaatu yooyu yëpp dinañ ko mën a drainer mu ñëw foofu noonu bu ko defee ñu mun ko yóbbu fi nga xam ne mooy bassin wu Kër Kab. mbokk yi ba léegi ci nemmeek googu euh, la ñuy desandi ndax euh, jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu toftal ci jëwriñ yi nga xam ne moom moo yor wàllum ndox mi ak assainissement. yi bàyyeekoo ci ndoxum uh, taw mi moom ginnaaw bu mu gisee Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou dem na gisee ki nga xam ne moom moo di Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadir mi nga xam ne moo yor kàdduy uh, yoon uh, Mouride ginnaaw bu mu waxtaanee ak moom ci lu yaatoo yaatu ci tànkam yi nga xam ne moom moo ko indi woon ci dëkk bu sell bi di Touba ak li nga xam ne moo jëm ci mbooleem chance yi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii ci dëkk bi mbokk yi ñu ñëwaat ci résidence Khadimou Rassoul ci euh, njàngum xasida mi nga xam ne bés bu yàlla sàkk ginnaaw takkusaan lañ ko fi amal door nañ ko ci benn fan ci weeru koor gi atum 1444 ginnaaw gàddaay gi atum 2023 ci teewaayu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou biñ jullee takkusaan ba noppi daanaka juróomi waxtu bi mu tegalee fanweeri simili ak euh, juróom ci la Serigne bi euh, ñëw ci salle bi nga xam ne moo di saalu Serigne Moustapha Bassirou bi nga xam ne ci la ñu amalee njàng mi. ci teewaayu kuréel euh, national bu Hizbut-Tarqiyyah bi nga xam ne ñoom ñoo doon amal njàng mi ci bës bu njëkk bi ñu amal fi njàng mu yaatu moo xam ne sëriñ bi teewee na ko ànd ko ñenn ci njabootu ko Cheikhul Khadim gi mbokk yi ñu xibaar yi fii ci euh, résidence Xaadimu Rasuul la fii ci dëkk bu sell bi di Touba ñu euh, baaxee rek déclaration bi nga xam ne xalifa général de Baye Fall di sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda amal na ko tey jii ci benn fan ci weeru koor déclaration bi rek jëm ci mbooleem taalibe yi rawatina ñi nga xam ne ñoo di waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ci kaddu yoo xam ne soññaat na leen gën a farlu waaye gën a tegee ci li nga xam ne moom moo di ndigal ñu ànd teewlu kaddu yi sëriñ bi li nga xam ne moo waral kaddu yi Cheikh Mountakha yónni nag yónnee si sëriñ bi mooy li nga xam ne ñun ñëpp xam nañ ko wala dégg nañ ko mooy li xew ci diggante kër gii di kër Cheikh Ibrahima Fall ak kër gii di kër maam Thierno Birahim moom ndaamal moom daaru muxti sëriñ bi wax ne sëñ Muntaxa de wax na ko ne ko diggante yaari kër yi dara xaju fi diggante yaari kër yii muy kër Cheikh Rafal ak kër maam Thierno Birahim sëñ Muntaxa nee na ko diggante yaari kër yi dara xaju fi du yaari kër genn rekk la ñoom ñaar day sunu borom bo moo leen boole woon ci seen sang ko di Xaadimu Rasuul sëñ Tuubaa ñu àndoon liggéey boobu di ko liggéeyal sëñ Tuubaa ba kenn ku ne laq ngërëmul sëñ Tuubaa waaye kenn ku ne xam cër ba nga xamante ne bii moom la sa moom la sunu borom. moom la la suñu borom fakkul ci liggéey boobu nga xam ne yàlla doon liggéeyal sëñ Tuubaa ndigal bi daal mooy sëriñ bi nee na loolu fi jiboon jot na ndigal Cheikh Mountakha mu ne ko na nga jottali taalib bi njabootu Cheikh Fall gépp ne bu ko kenn waxtaanee bi bu ko kenn tuddal bi bu si kenn waxat yi ñëpp nañ ko delloo si xam ne mbirum seytaane la te seytaane bi moom daan nañ ko ba noppi mbokk yi lii lañ leen indiloon tey jii ci xibaar yi nga xam ne mooy bàyyi ko ci dëkk bu sell bi di Touba ci biir weeru koor 1444 ginnaaw gàddaay gi di atum 2023 dig leen daje incha allah ëllëg ci yeneen xibaar yoo xam ne day bàyyeekoo fii ci euh, Touba Mbacké ngir dugal li nga xam ne moom di weeru koor gi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf.